أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي عند تجين تيري الله سبحانه وتعالى toll ci ba tey ala imran di jël tey ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ñetti aaya muy aaya 69 77 69 70 71 insha allah ñetti aaya yi juróomi mbir lañ ciy jàng bu ci njëkk mooy bayaanu ragbatu kathiru min alyahud wannasara fi idlaali almuslimina wa ihlaakihim li ñuy njëkk a jàng tey ci sunu aaya yi mooy borom bi subhanahu wa taala daf ñuy leeralal lan mooy bëgg-bëgg lu bari ci yahuud yi ak nasaraan yi lan mooy seen mébét seen mébét du leen dul fexe ba jullit ñi sànku daa di réer daa di alku kon loolooy lu njëkk lu ñu sunu borom subhanahu wa taala di jàngal tey mooy yahut ak nasaraan seen jubluwaay ci ñun jullit yi seen bëgg-bëgg ci ñun mooy ñun jullit ñi fu ñu mën a nekk rek mooy nanu sànku daf lay woowaat demal su ko defee kon war nañu bàyyi xel ñooñu seen bëgg-bëgg ci ñun mooy ñun ñu sànku alko ñaareel li ñuy jàng tey ci aaya yi mooy aqibatu charr wal wal fasad taudu ala sahibiha fi nihayati al amr bokk na ci li ñuy jàng tey mooy ak mbonte ak yàqute lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg mbonte ak yàqute de du delluwaat lu dul ci ki bon ak ki yàq ci kawam rek lay këppwaat lu mbir mi sori sori sori lu mu wër wër wër yàqkat yi mbir yi seen kaw lay këppwaat ñoom ak nit ñu bon ñi nga xam ne lu bon rek lañu bëgg ñetteel mooy tubhu man yaktumul xaq wa huwa yaarifuhu mbonu kii nëbb dëgg te xam dëgg nit ñi nga xam ne dañuy nëbb dëgg te xam ne dëgg gaa ngi nii ñu teg ci seen tànk walla ñu muur ci seen loxo lànk bañ dëgg gi feeñ ñooñu seenu mbonte dinañ ko jàng ci aaya yi nekk sunu kanam ñeenteel mooy xurmatu tadlis wa talbiis fi kulli shay la siyama fi diini llahi taala li ibaadi nnaasi anhu danañ jàng tey ci aaya yi nekk sunu kanam araam gi nga xam ne araamal na araam na lëndëmal ak lëntal walla jaxase ak lëntal di jaxase mbir yi walla nga koy lëndëmal mbaa nga koy lëntal rawatina nag mbir yooyu bu ajoo ci wàllu diine lu tax ñooñu di ko def mooy bëgg nit ñi sori dëgg loolu dong moo leen ci dugal loolu tamit danañ jàng tey ne ci sunu aaya yi nekk sunu kanam loolu araamal gi nga xam ne diine araamal na ko juróomeel ci li ñuy jëlee ci aaya yi mooy xurmatu kitmaanul xaq fi shahaada wa gayriha araam gi nga xam ne dina ko araam nëbb dëgg rawatina bu dee seede la ak leneen lu dul moom nëbb dëgg def cee xaraam mbokk yi bu ñu xoolee juróomi mbir yi ay di jàngale dees na wax ne tey fii nu toll ñun jullit yi daanaka ci lii lan nekk lii lanu yàlla subhanahu wa taala di bàyyiloo xel ci aaya yi nekk sunu kanam ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودت طائفة من أهل الكتاب لو يدلونكم وما يدلون إلا أنفسهم وهم وما يشعرون وما يدلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون بقي برم سبحانه وتعالى منجي وخ يهودي نصراني waaye wax ji yàlla di wax ak ñoom ñun ñi lay bàyyiloo xel ñun jullit yi yàlla mu ne waddat ngéejow na bëgg na taifatum benn kuréel min ahlil kitaab yi ci ñooñu téere law yu dillunakum suñ leen sànkee borom bi subhanahu wa taala nee na benn kuréel a ngi nii boo xam ne ci yahud yi lañ bokk ak nasaraan yi ñoom seen xëy ak seen gontu yépp seen dugg ak seen i génn seen i mébét lépp mooy yéen jullit ñi bu ngeen sànkoo rek yéen jullit ñi bu ngeen wàccee ci dëgg rek tegu ci caaxaan ñoom loolu rek lañuy la ñuy def moo tax mbokk yi bokk na tey ci li alak jullit yi mooy ñu yor téere bu toll nii di alquran borom bi subhanahu wa taala wax ni wax ñu ci lu leer nañ guddi ak bëccëg loo xam ne saa yuñ ci tegee sunu baaraam dafay mel ne tey te lii wax la joo xam ne yàlla waxoon na ko ak ñun depuis septième siècle tey jii fii nu toll ñuy dund mbir yi à la lettre nga xam ne jubluwaayu yahud yi ak nasaraan yi ci kaw suuf yépp mooy bu jullit ñi sànkoo rek bu jullit ñi alko amaana sax bu fekkoon ne am nañu kàttan dëgg-dëgg mooy jullit du dox ci kaw suuf jullit du dox ci kaw suuf kon bu nu yàlla waxee lii depuis boobu ba léegi ñu nekk ci di ci am ay sikki sàkk ak di ci am ay dut ak ak ak ak du ñu jóg suñu bopp du ñu fexeel suñu bopp ñu yaafuus yambare toll ci li nu toll lii koy wax yàlla la te waxi yàlla ji chaque jour ñu teg ci baaraam yàlla subhanahu wa taala mu ne ahabbat firqatun am na benn kuréel ay mbooloo te mooy al ahbar wa ru'asa fihim mooy seeni njiit lenn ci njiit yi tey boo duggee ci loge maçonnique yi loge yahud yi ak nasaraan yi da ngay gis seen jubluwaay ci kaw suuf yépp mooy fexe ba jullit ñi duñu am jàmm na jullit ñi dëkk ci ñàkk na jullit ñi dëkk ci feebar na jullit ñi jullit ñi dëkk ci toroxtaange xanaa bu jullit tekki ci kaw suuf loolu moo tax gis ngeen système yi ñuy dund va am na benn vendredi bu ñu leen waxoon fii ne feek teggiwuñu sunu programme réew mi du dem du waxoon naa leen Massi Côte d'Ivoire Sénégal fu muy mujjee fu ngeen mujjee tey. ah dañ leen a dóorati. gis nga dañ leen a dóorati. mu wax loolu yëpp ci ñàkk yittewoo sa bopp la borom bi subhanahu wa taala wax ñu wax ji kon war nañu bàyyi xel suñu bopp liggéey te nekk ci yitte def fulla ak fayda suñu bopp xam ne lii ñu yàlla wax mooy dëgg suñ ko gëmee ak buñ ko nanguwul buñ ko nangoo ak buñ ko nanguwul buñ ko gëmee ak buñ ko weddee yàlla lim ñu wax mooy dëgg ba yowmal qiyaamati mooy nekk dëgg yàlla lim ñu wax mooy benn mbooloo mu ngi ci yahuud yi ak nasaraan yi ñoom seeni mébét guddeeg bëccëg mooy yéen law yu dillunakum suñ leen sànkee rek bu ngeen sànkoo rek ñoom ñu noppalu fekk sànku leen rek ñoom du noppalu waaye yàlla mu ne ñu wamaa yu dilluuna ñoom day du ñu réeral du ñu sànk illaa an fusahum du ñu sànk lu dul seen bopp wamaa yashurun waaye yëguñu ne ñoom seen bopp la ñuy sànk lan moo tax seen bopp la ñuy sànk wala fi dañu ne lu bëgg a ñoral mbuum dee ci dégg ngeen olof boobu lu bëgg a ñoral mbuum dee ci dégg nga olof boobu déggoo ko yow yow bu ñu tegee fii benn cin di togg cëriñ mbuum cin baa ngi ci kaw gaz bi lépp luñ ci def pour mbuum mi ñor loolu day dee wala du dee lu koy rey ah tàngaay baxaayu cin bi mooy lu bëgg a ñoral mbuum dee ci mooy nit bu buggee sànq jullit yi nit bu buggee sànq ay nit ban yoon la leen di jaarale yoon bu baax wala yoon bu bon ah yoon bu bon boobu mu leen di jaarale sama moom day jiitu moo tax day sànq boppam ci biir sànq bi mu jóg di sànq ñii moom ci lay sànkoo ba ci sunu yoon yi nekk fii gis nga ñi ko jiite xoolal bañ jógee di xëcc mbooloo yooyu pour mbooloo yooyu ñëw ci ñoom di leen wan ay mbir fuñ mujje ñoom ci seen bopp dañuy sànk sànkaale ñi topp seen ginnaaw moo tax saa yoo jógee nag di woote ci njub maanaam da ngay jub ku la topp jub waaye ba saa yoo jógee di woote ci mbon da ngay bon ku la topp bon parce que mbon gi yaa koy jiite loo def xeeb ko bu doon sàngara yaay ëpp looy naan balaa gaa yi naan sax yaay njëkk naan ñu doog a naan am fit bu doon cigarette la bu doon bu doon bu doon bu doon bu doon yow yaay jiite ba pare nit ñi am fit donc laa toog boo waxee ñu nag kilifa gi daf koy def dara nekku ci moo tax ñun ñu def ko loolu tax yàlla mu ne wa maa yudilluna sànkuñu ñoom yahudi ak nasaraan yi illaa lu dul anfusahum seen bopp waaye wa maa yashuruuna yëguñu ne seen bopp la ñuy sànk ñoom yahudi ak nasaraan yi wa maa yadruun wala yaclamuuna bi annahum bi muxaawalatihim idlaali almuminin innama huwa yudilluuna anfusahum waaw waaw borom bi nee na ñoom day yëguñu xamuñu ci jéem gi ñuy jéem fexe bi ñuy fexe yoon yi ñuy tëral pour sànq way gëm yàlla yi ci yoon yooyu ñoom ak pexe yooyu la ñuy sànkoo ñoom seen bopp xaysu yatawagaluuna fi charri ndax danañ dem bëgg gas ay kàmb mbon ñoom seen bopp ñu dugg ci lab ci su boobaa nag ëllëg yowmal qiyaamati fa yudaafu lahum al azab yàlla daal leen di dubleel mbugal mi kon mbokk jullit yi sori bi ñu sori alquran tey ak ñàkk koo dégg ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon jàngale feeñ na ci sunu dund ci bépp pexe bu yahut ak nasaraan tëraloon yàlla subhanahu wa taala dinu ko moytandikuloo tey ñun këpp nañ ci man naa yahut yi ak nasaraan yi ba ñu tëralee ay yoon pour sànq jullit yi mbokk yi ndax jullit yi rëcc nañ ci yoon yooyu ah dañ cee dugg te li waroon mooy ñu mucc ñu mucc rëcc lu tax ndax téere baa ngi nii téere baa ngi nii su fekkoon ne tey ñu ngi ci 100 pour cent di ko dund à la lettre kon bépp pexe bu yowut ak nasaraan teg rek dañuy xam ne lii pexe la ñu daal di koy jéggi duñ ci këpp mais ba ñu sàn ba ñu sànnee téere bi sunu ginnaaw topp sunuy mbiri bopp ñoom ñu tëral yoon ay yoon taaralal ko defar ko te lépp dara baaxu ci planning familial est-ce que baax na rafet na de ah rafet na de da ngay dégg ñu ne lan xaw ma organisation lan wala espace parce que bu ñu la nee limite lan lañ lay def ah ak yeneen ak yeneen ak yeneen xoolal banque yi xoolal banque yi niñ ko taaralee te privé la ah te yooyu lañ ñemee wax yooyu lañ ñemee wax daanaka dund jullit di tey néew na looy dund te yahud ak nasaraan yi defaloon la ay embuscade yoo xam ne loo dund dund dund diine di nga laal ci lu bon li li yonent bi doon wax ne sallallahu alayhi wa sallam jamono ngi ñëw di ngeen lekk riba ku lekkul riba sax ku deful riba sax di nga lekk ci poussière bi tey foofu lan toll maanaam tey loo tëb tëb tëb tëb am na buum yu ñu takk sa tànk ndax lépp ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko ñoo ko yore lépp lan yore loolu nag lu ko waral mooy jullit yi ñàkk déglu alquran borom bi subhanahu wa taala mu ne yaa ahlal kitaab e yéen ñooñu téere yàllaa ngi waxat yahud ak nasaraan yi mu ne leen lima du foofu la de lima takfuruuna lu tax ngeen di weddi bi ayaatillaahi ci aaya yàlla yi wa antum yéen tashhaduuna yéen a ngi koy seede xam ngeen ne lii dëgg la waaye yéen a ngi koy weddi lu tax yaa ahlal kitaab e yéen ñooñu téere saa yoo dégg ahlul kitaab rek mooy yahud ak nasaraan borom bi woo na leen ne leen lima tajhaduuna lu tax ngeen di weddi di dëgër bopp ci aaya yàlla yi nga xam ne xam ngeen ne xel dëggal allati biha naat ar rasul saa sallam aaya yi nga xam ne dafa wone melokaanu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngeen effacé ko ah wala mu wone sifa mandarga yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci tawraat ak injil li koy leer na ne kon koo xam ne bëggul sa yonent koo xam ne gëmul sa yonent kii soo ko bëggee topp fan la la jëme moom ba mu fekkee sa yonent melokaanam ak màndargaam ci ay téeréem daf ko weddi yi mu effacé ko yi mu jaxase ko yi mu tudde ko leneen kooku boo ko bëggee topp daf ko royukaay fan la jëm ak yow ñoom fekk nañ melokaanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay màndargaam ci tawraak al injil ñu teg ci seeni baaraam daal di koy effacé walxaalu annakum tashhaduuna annaha sifatu rasulillah te li wóor mooy ñoom seede nañ mu leer nañ ne lii melokaanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu leer nañ ñu wax leen ko mbokk yi ndax loolu dug mbon alaysa haza qubhan aha kay ak mbon dëgg la waaye nag moon la goo xam ne ñoom bañ ko bonee yéen bàyyiwu leen xel ne ñoom loolu lu bon la ndax tey ñun leer nañu ne yahudi ak nasaraan yi bëgguñu yàlla bëgguñu yonent lislaam rek lañ bañ seen pexe yëpp adduna bi yëpp mooy lislaam la ñuy xeex waaye ñu ñooy ñooy sunuy xarit ñoom la ñooy sunuy mbokk ñoom lañ def ay xarit def leen ay mbokk def leen ay àndandoo ixwaan yi yàlla subhanahu wa taala nee na loolu ak mbon la te ak yàq la mu ne taudu aqibatuhu aleykum résultat bi mooy yéen day këpp waat seen kaw bu ngeen leen déggalee bu ngeen leen toppee bu ngeen déggalee yahud yi ak nasaraan yi ci weddi gi ñu weddi téere yàlla weddi aaya yàlla yi te mu leer ci ñoom naññ dëgg ba yéen ngeen topp leen ci loolu yéen di ngeen alko tey dëgg-dëgg topp nañ leen tey dëkk jullit boo dem dañ naan ñun ay jullit lañ waaye duñu àttewoo téere yàlla ñun ay jullit lañ mais ay jullit lañ laïque modéré dangay dégg benn waaye bu ne non ma moi je suis mu mu lan musulman modéré ah man dama man duma duma kii ah wala loolu mooy la loolu kay mooy duma jullit mais moi je suis musulman non pratiquant ay kon kay yow doo jullit musulman non pratiquant nga gis gars yi di ko tiitaroo mais lui il est musulman hein mais il n'est pas pratiqué waaw kon kay du jullit kon koy loolu jarul tiitaru jullit mooy kuy jëfe diine ndax yàlla bi muy wax diine bi dafa ne udxulu fi silmi kaafa dugg leen ci diine ji yàlla mu ne feneen afa takfuruna bi baat afa tuuminuna bi baat wa takfuruna bi baat da ngeen di gëm lii weddi lii fama jazaa'u man yafalu zalika minkum illa xizyun fi lxayaati dunia kon ab islam mooy dundu diine ji waaye yaa ahlal kitaab lima takfuruna bi ayatillah lu tax ngeen di weddi téere yàlla yi aaya yàlla lu tax ñoom ba ñu weddee téere yàlla yi ba pare ñun luñ def mooy ñun ñu topp leen ci tey li tax jullit ñi mënuñu àttewoo lislaam xoolal barki dem Égypte Mursi bi mu yégee mu ne day àttewoo sharia luñ def coup d'état rey ñi tëj ñi nangu seen alal bi nu amoon lépp parce que pourquoi nee na ñii dañuy àttewoo sharia dégg naa Tunisie parti islamique bi démissionné na ah parce que day bañ li dal Égypte li dal li dal waa Égypte dal leen suñ ko bañee def ñu yox armée bi na dal seen kaw ñu rey leader yi jàpp ñeneen ñi tëj ñoom tamit def leen noonu tey ci suuf jullit ñi xoolal ni ñu bare mais ñemewuñu dund laa ilaha illa moom ñemewuñu àttewoo sharia loolu gàcce la de mbokk jullit yi jullit yi xoolal ni ñu bëree ci àdduna bi amul benn réew bu ñëwee àttewoo islaam te ñàkk àttewoo diine lan la kufur la ay aaya la yu ne bi weng ci quran wa man lam yaxkum bi ma anzala allah fa ulaayika kafirun benn bi ne zalimun beneen bi ne fasiqun ñetti aaya fu ñu jëm ak loolu yàlla mu ne ku àttewul téere bi yéeféer nga tooñkat nga kàccoor la tey ñu nekk ay Sénégal rek ñaata ñaata xoolal dëkk bi ci tribunalu laïcité yi la ñuy àtte sunu lépp laïcité la lépp du ñu ànd ci lenn du ñu nekk benn ci lenn ñoo ngi ni tabaski lañ jëm yenent bi day taxaw arafaat lëndi julli ñi dañuy taxaw lëndi yenent bi bu taxawoon arafaat tey suba day julli maanaam kon tey yonent bi doon dund taxaw lëndi arafaat mardi lay julli waa Sénégal julli mercredi ndax ñoom yonent bi doyu leen doyu leen addina bi yëpp di julli mardi Sénégal tundum di julli àllarba loolu fan lañ ko teg ah fan lañ ko teg ci ay bànneexu bakkan ci ay farfarloo kilifa diine gu nekk di wane ngandaayam ñun fii la ñu bokk ñun suñu yoon ci sharia ku ne sama yoon ci sharia yow nga xam ne sharia nga bëgg a dund yow dama nga dund sharia nit ñoo xam ne dañ koo wax ba nit ñi dégg ko ñun sharia suñu yoon nekku ci mu leer wala du loolu la ñuy wax ñun suñu yoon ci sharia waaw ñooñu koy libéré nan nu ku gëmul sharia yow bu jullit bul ànd ak moom ci leen nag parce que sharia mooy lislaam ku ne man gëmuma lislaam yow bul ko xaarati demal nga wéy nga béy sawaar nga dem waaye déedéet beneen bi mooy lu nu lu nu alak ñun waa Sénégal mooy def waa Màkka wujju waa Sénégal waa Màkka ñooy seen wujju waaye nag waa Màkka ñoom la ñu am yàlla may na leen ko ba pare dañuy sonn rek nu ngeen musak waane ba am fii Safa ak Marwa mbaa ngeen am Kaaba bu yeboo ngeen tabax seen jumaa yëpp nag bu yeboo ngeen bu yeboo ngeen def lu leen neex bu yeboo ngeen defar lu leen neex bu yeboo ngeen gas ay teen du ngeen am zam-zam dégg ngeen de bu yeboo ngeen lu leen neex def leen du ngeen am maqaama Ibrahim du ngeen am Safa ak Marwa loolu yàlla defal na ko waa Màkka ba pare innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha yàlla nee na xéewal maa koy defal ku ma neex yàlla defal na leen ko beneen bi mooy lu ñu leen contre contre contre bu ñuy julli foofu la ñuy jublu de jublu leen feneen lu ñu leen contre contre contre alquran bi wàcc foofu moom la ñuy jullee jeex na waa màkk du suñuy wujj du suñuy na du suñuy wujj du ñu ay wujj ba tax naan dégg naa benn waaye ci rajo bi mu naan non lundi bu dee Arafat loolu waaw waa màkk ak waa Médine la concerné o ñun concerné wunu ñoom ñoom la concerné xalaa ñun du ñu ay julli Arafat kay concerné wul màkk ak Médine Arafat ñëpp la concerné jullit yi ci àdduna bi yëpp maa ku gëm laa ilaha illa muhammad rasulullah rek Arafat war na la concerné parce que bu fekkoon ne concerné wu yonent bi sallallahu alayhi wasallam du wax ne jullit yi nga xam ne aji wuñu woor leen arafat su ngeen wooree arafat ngeen am tiyaabay ku yàlla jéggal ñaari ati bàkkaar léegi nag jullit bi alku mooy jullit bi bàyyi ba mardi mu naan arafat waa Sénégal mardi la man mardi laay woor amu leen arafat de maa indakum arafat anamu fan la arafat nekk Sénégal fan la wax leen ma ko da ngeen am fi montagne bi tur Arafat dëgër ngeen fi torop nag na ñeme ngeen ko kere suba waaw Sénégal ak a ñëw dëgër bi ñeme nañ ko de billaahi wallaahi ba pare nag waxuma ñu kere ko bare waaye ñeme na ñoo wax ne yonent bi moo leen feeñu ne nag nañ ko fi def ak ñu am fit waaw ak ñu am fit amakinul muqaddasa place yu sell yëpp yàlla nga def màkk waaw ak midin loolu la yàlla def dëkk bu nekk am na xéewal gu la yàlla defal ñoom loolu la leen yàlla may yàlla moo leen may ñu nekk royukaayu ci diine yàlla wàcce ci kaaba ga ñëpp di jublu kaaba gi fa haysuma kuntum fa wallu wujuhakum loolu la yàllaa ko wax fu ngeen mën a ne seen kanam yi na jublu kaaba gi jeex na kaaba gi fa mu nekk jeex na léegi nag ñun su fekkente ne dañu bañ loolu bëgg indi sunu mbiru bopp même même même da ngay gis ci wàllu nodd ci wàllu jàng alxuraan amoon nañ benn imaam buy jàng alxuraan sa yaram day daw faatiha bu koy jàng booy pare di julliwaat benn bis ñu dem ziyaare ji ko këram ñu ko imaam imaam ni ngay jàngee fatiha daal wax dëgg yàlla xaw na yéeme mu ne ñun ak yéen bokku leen bokkuñu ñun ak yéen bokkuñu am na benn waay boo xam dafa ñëw fekk jàkka ji ñuy heure bi jot kenn noddu rek mu jël micro bi allahu akbar allahu akbar mu pare rek benn paa ne ko gis nga sa noddu màkk yi da nga ko yóbbu màkk fii kenn du fi noddu loolu ah sa noddu màkk yi ma noddu màkk dafa am waa màkk dañoo moom nodd bi sa noddu màkk yi da nga xam ne fii kenn fi nodd nodd yooyu waaw yooyu mooy yooyu yi fa yooyu lu dugal suñu bopp jàpp ne alxuraan bi bu ñu koy jàng waruñu ko tajwid boo tajwidee ñu ne waaye looy naaral nii looy arabal jéem a fexe ba nit ñi ku nekk daal da nga yor sa diine bo loolu la Macky Sall wax fi président de la république bi ñu yow affaire Mali yi fii mu ne nañu xam ne ñun Sénégal dañoo am suñu islaamu bopp fu ngeen jëlee l'islam bopp l'islam boobu dafa am ñun dañoo yor diine boo xam ne mooy sunu diine mag mag ñi kon loolu mooy sunu diine mag inna diine indallaahi l'islam benn diine kese moo am amul diine sàmba diine demba diine arab diine nit ku ñuul amul diine bi benn la bu fekkee ñun dañoo yor sunu diine bopp bu suba jotee nañ julli juróomi rakk wala ñu julli benn ah li yonante bi doon julloon julli ñaata tisbaar ñaata kon kay amu leen beneen diine wa lan ngeen ban weer la nuy woor ban aj la ñuy aji ban alxuraan la ñuy jàng kon kay mënuñu wax loolu nekk ci li pare ne ñun dañoo am suñu yëfu bopp dafa am loo xam ne ni suñu islaamu bopp waa islaamu bopp islaamu bopp dafa am ci àdduna bi yii yëpp nag mooy pexe yahud yi li li yàlla di wax nii mooy wadda taifatun min ahlil kitab law yudillunakum mooy pexe yi wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayati llahi wa antum tashhadun e yéen ñooñu téere yahud ak nasara les gens des livres lu tax ngeen di weddi takfuruun la yàlla wax ngeen di weddi di sakk bi ayati llahi aaya yàlla yi mu leer la ne lii aaya yàlla yàllaa ko wax ngeen koy weddi te wa antum yéen tashhadun mu ne yaa ahlal kitaab yi yéen ñooñu téere ndeysaan lii ma lu tax ba tey talbisuuna ngeen di jaxase alxaq dëgg bil baatil ci neen lu tax ngeen di jël dëgg di ko jaxaseeg caaxaan lu tax tey loolu mooy li am dëgg ak caaxaan addina bi ñooy ñëw jël caaxaan xoolal tey jàkk yi ni ñu viddee tey am na sax tey nit ñi ñëwul dars parce que dañoo dóor Sénégal xoolal tàkksaan jàkk yi ni ñu viddee dëkk bi ñëpp a wàcc xoolal ni ñu teg fi ñu teg football xoolal fi ñu teg làmb ah xoolal fi ñu teg caaxaan yi loolu mooy jël caaxaan di ko teg ci kaw dëgg fexe ba dëgg amatul njëriñ tey lu ñu woote suñ ci dugalee caaxaan rek loolu xumb bëri nit wala bañ nañ ko sax ba dëgg yi léegi bu ñu koy woote foog ñu tekki caaxaan ndax nit ñi ñëw wala xoolal tabaski bi sax léegi xar yi sax dañ koy carte xar yi dañuy carte xari tabaski yi ñaata xari tabaski la ay nit di gagné ci carte carte te yàlla tere ñu loolu li ma talbisuuna alxaq bil baatil lu tax ngeen di jaxase dëgg ak fen ak neen lu tax yàlla bu waxee lii waa ahlul kitaab kon ñun jullit ñi lan la ñu wax lan la ñu war a def est-ce que benn aaya bii rek moo ñëw ci alxuraan di di tere jullit yi jaxase dëgg ak caaxaan ah bii rek la jàng leen ci suratul baqara aaya bu mel nii wala ci suratul baqara jàng ko yàlla mu ne ana ana ana ñu mokkal alxuraan anañu yaa bani israil wa taktumuna alxaq wa antum taalamun lu tax ngeen di jaxase dëgg ak fente yéen xam ngeen gis ngeen mana dëgg bu nekkee nii bu ko jaxase defal dëgg gi rek waaw dëgg kay weesuwul mardi nekk julli tabaski ñii julli mercredi ndeysaan benn paa day julli si fii vendre vendredi xam naa dafay julli vendredi mu fekk imam bi daal di xutba ne mardi mooy julli tey mu koñ ma ni mu waaw léegi man d'accord naa dinaa julli mardi waaye xar mi nu ma koy def mu ne ma xar mi nu ma koy def ma ne ko ah kañ nga julli kañ nga bëgg a julli mu ne mardi ma ne ko léegi mu ne sama waa kër gis nga léegi mooy sa waa kër ñoo lay tere jaamu yàlla allahu akbar sama waa kër mu ne ma daaw tam noonu lañ ma def ñëw naa julli ñu ne ma doo ko fi rey de ndeysaan sama waa kër sa waa kër ñoo lay tere topp dëgg li ma talbisuuna alxaq bil baatil wa taktumuuna alxaq wa antum taalamuun allahu akbar bilaay yàlla mooy mbokkal yàlla moo dëgg wa taktumuuna alxaq wa antum taalamuun ngeen nëbb dëgg te mu leer la yow mii nëbb nga dëgg yaa ngi toog ci kaw dëgg gi mbokk yi xam nga lenn mooy suñu problème lii ñuy def kan moo ñu ko sant du jaamu yàlla jaamu yàlla loo ciy xool lu neex sàmba lu neex demba lu neex mbooloo mi ndax ñii def nañ wala ñuy defuñ yow jaamu yàlla ngay def kan nga war a xool kontanteem yent yàlla Moussa yàlla def ko ne àndal ak waa banu Israil ngeen dem tuuru Sina waa banu Israil di yéex yéexlu Moussa départ yàlla ne ko ana gaañi mu ne wa ajjaltu ilayka rabbi li tordo yàlla man damaa yàkkamti ñëw de ngir nga kontaan ci man man noonu la ab jullit di def jullit day yàkkamti dem ci yàlla li ngay def na nekk ngir yàlla jàng ngeen ci quran wallahu wa rasuluhu ahaqu an yurduhu in kaanu mu'minin yàllaa ko yonent bi ngeen war a ut seen kontante jàng ngeen ci xadis yonent bi ne laa taata li maxluqin fi maasiyati alxaaliq kenn du topp mbindeef ci meri aji bind jàng ngeen innama taatu fi lmaaruf su ñuy topp nit na fekk muy digle lu baax ah ay commission ban commission li yàlla wax ak yonent bi ne fàng nga naan commission bi lañ wax ah li yàlla wax ak yonent bi ne fàng leer nga naan commission commission bu lay tere topp yàlla ak yonentam jour bi nu dugal diggante tabaski ak arafaat jour boobu lu mu fi def waaye lépp du ko waral mooy farfarloo rek moo nekk suñu xol yi farfarloo waaw mooy li ma waxoon sànq def waa màkk wujj waaw waa màkk ñun duñ leen topp duñ leen topp nun duñ leen topp mukk ndax ñun am nañu ay kilifa fii waaw d'accord suñu kilifa yi am fii de maa màkk leen toppoon wala wala su waaw ñun bu nu bañee ne suñuy kilifa la ñuy topp kilifa yi ñu amoon fii waaw màkka lan toppoon de jàng leen seen téere Aboubacar la ñuy tagg Ousmane Ali ñooñu fi ñu bokk Umar Muhammad sahaba yi Bilal Zubayr Hamza ñooñu la ñuy tagg seen téere yi de ñooñu fi ñu bokk ñooñu dañoo màkk ak waa Medine jeex na kon nag yenn yi far far loola ak seytaan ak topp yahuud yi encore ak nasaraan yi gis ngeen tey jullit yi seen pexe yu bari yu ñuy topp ay def-def fii yahuud yi ak nasaraan yi la ñoo nekk ci ginnaawam yenn ñenn ñenn ñi di leen def leen li bu leen def li def leen li bu leen def yéen waa Sénégal na ngeen yor beneen diine boo xam ne bokkul ak diine waa màkk yéen am ngeen seen diine bopp yéen seen diine bi sax moo gën wala leen di wax seen diine bi moo gën diine màkk màkk dara nekku loolu lañ lay wax dara nekku booy aji màkk sax booy tàggu sa sëriñ mu ne la boo demee bul fa xool dara bul fi indi dara fii li fi nekk doy na ku dem sa sëriñ nag nga koy tàgg mu ne la boo demee bul fa jëleel dara boo fa jëlewul dara doo fi indi dara te perte weesu nga dem ba màkk nga indi fi ay loxoy kese ndeysaan perte weesu mooy perte nga sa alal perte nga sa coono indi woo fi tus waaw musiba weesuwul loolu yaa ahlal kitaabi e yéen ñooñu téere lima yàllaay laaj de lu tax talbisuuna ngeen di jaxase alxaqa dëgg bil baatili ak neen lu tax ngeen di jaxase dëgg ak neen allahu akbar xiltatu bihi ngeen jaxase ko kaannama kisan al baatil sawba alxaq ngeen jël caaxaan soral ko yére dëgg wa kisal xaq sawbal baatil ngeen jël dëgg soral ko yére fen ba ku ne tëll seen fen taxaw mu ne dëgg ngi nii mu xool fële caaxaan mu ne dëgg ngi noonu mu dem foofu loolu am léegi wala loolu moo am léegi ma wal leen ci ñaari misaal yu jege jàkka ji ak stade bi wala ren moom yàlla dimbali nañu kenn footballu fi nawetaan waaye jamono yi ñu doon football fi nawetaan waxtu wii nii nga xam ne ci lañ toll nii lamp yaa ngi tàkk lacrymogène yaa ngi fekk ci biir jàkk ji mbooloo mu moo fi nekk tafsir stade bi fees del del del del del nga gis ku ñëw day romb jàkk ji jubal stade góor ak jigéen mag ak ndaw wala loolu du jël caaxaan solal ko mbubbu dëgg jël dëgg solal ko mbubu neen da ngay kuram fi ne ah fi de ibaadu yi ñoo fi tafsir ah daal di jubal.
toroxal seytaane sax dañ koy wax.
waaw nañ dem toroxali seytaane gis nga waaw waaw jërëjëf waaw ah fii de ay jàng nga fi am nan dem fële waaw fii de lii de dafa géey nan dem fële moo gën a xum loolu la ñuy def nii loolu du loolu lu yàlla di wax ne jël caaxaan solal ko mbubu dëgg. dem naa ci bay mi leen ngénte barki démb saal boo xam ne ëpp na jàkka bi góor ñi fees del saal bi ñu jël benn jigéen tind mu ñëw ni day indi liir bi moom kese bëgg a xuus góor ñi taxawal fële ma ni kenn indi liir bi ñu ne eh, moom mooy bàjjan bi waaye nii nii ne ma ni waaw d'accord nañ loolu kay bàjjan bi kay moom mooy bàjjan bi loolu moom du deñ waaye nag lu mu ut ci biir góor ñi fan la yonent bi waxee ne na góor ñi toog bàjjan bi jël liir bi indi ko ci biir nit ñi fan la ko yonent bi waxee bàjjan kay ala kulli xaal mooy bàjjan waaye fan ngeen jàngee ne bu ñu leen bu ñuy ngénte doom bàjjan mooy uuf liir loolu fu ñu ko jàngee beneen bi mooy xoolal lii lu mu toll moom kese mu ñëw bëgg a ñuuxu fii ci biir nit ñi ñi fu muy toog fii ci kaw góor ñi ma ne ko taxawal ne la bu ñu ko tuddee pare yow yaay bàjjanam ñu dee loola ko ñun ma war a bàyyi rek ma toog ci biir waaw di changé kanam yow mi wax loolu sax da ngay mujj nit ñi naan di la xool ah da ngay da ngaa bëri problème quoi yéen da ngeen a bëri problème loolu lañ lay wax mënoon ngaa bàyyi rek mu toog loolu dara nekku ci parce que fii lañ ko fekk. mais ren fekkuñu ko fi wallaay ñun ñoo ko fi indi waaye fekkuñu ko fi ndax fekkuñu yonent di ko def waaye bu ñu bañee ñuñ ciy mere du deñ bu ñu bañee ñuñ ciy mere du deñ parce que du dëgg loolu mooy jël jël caaxaan solal ko yére dëgg ndaw si day muuru juróom-ñeenti sëru rabal te musul muuru ba boo ko gisee nga yaakaar ne benn wali yu muy ñëw te bu génnee saal bi sànni yére yi fële génne mees mais buy ñëw ci imam bi dañuy yaakaar ne benn malaaka mooy wàcc si du doo doo xam kii kan la boo ko xamuloon doo ko xam ndax nuñ koy muuree juróomi sër waaw doo gis dara ci moom waaw te bu génnee sànni ko loolu koy jaaxal la parce que day xuus góor ñi fan lañ jànge loolu ah yooyu ay mbir la yoo xam ne dafa bëri tey ci biir dëkk bi caaxaan yi dañoo bëri ñu jël ko dugal ko ci biir diine bi kenn du wax jàng ngeen barki démb seetaan ngeen barki démb télévision boobu du ma tudd télé bi te muy def émission boobu tudd rëg rëg déet bul tudd télé bi bàyyi noonu rek dañ wax émission bi rek ku ku ku dégg tur bi di nga xam ci ban seen la nekk benn waaye lañ indi émission rek rek muy wax xaru tabaski njëriñ ñi wala mu ne béjjën yi waa ji daal amul lu mbaay buum gi sax wax na ko buum gi loolu ban diine la kawar yi deret ji yax yi yàpp bi geen geen gi buum bi ñuy takke xar bi nee na buum bi boo amee jigéen juy njaaloo boo ko takkee buum bi dootul njaaloo xërëm yoo xam ne da- daanaka moom xaru tabaski ab xërëm la ko def ab xërëm deret ji boo ci tànqee boo dan di dencee lii res bi boo bañee dugg kaso wala ku dugg kaso ba pare yooyu yooyu yooyu du diine loolu du benn diine xaru tabaski daanaka waajooju boo ko déglu nga jël note li mu wax lépp soo paree yow amoo tabaski ab xërëm nga am te terewul xoolal da ngay gis léegi ku ko def beneen bi mooy xaru tabaski suñ koy rendi nañ ko jàppal jàpp indi leen ndox ñu jàppal xar mi indi satala xar mi di jàpp gars yi am fit nag ñeemewul ñu ne dañuy raxas laxas leen loxo yi ana loxo yi ana loxo yi xar dafa am loxo xanaa du ñu ñaar tànk yi ci kanam mooy loxo yi de ni ñu lay njëkk après ñu ne dañ inna lillahi wa inna ilayhi rajiun jàpp jàppal xar xar jàppal xar est-ce que xam ngeen ne xaru tabaski balaa ñu leen dana dañ leen di jàppal mbaa amul leen fii fii ci yéen ku koy def mbaa amul fii ku koy ku seen waa kër ku koy def loolu musiba la de loolu du diine de ah buñ koy rendi encore ñu ñëw jàpp jàpp ndigg paa bi wala kuy rey ñu ñëw jàppal la sa ndigg ñu jàppante maire bi ñëw jàpp taaw bi ñëw maanaam kër gi nu ñu magantee la ñuy ñëw jàpp waaw ñu lonk nag daf benn chaîne lonk kër googu bu dee 200 lañ fuñ jëm xoolal ca xoolal caaxaan yooyu ñu ne bu xar bi di jéggi siraat maanaam bu xar bi tëbee ñii ñëpp da leen di yóbbu xaru tabaski léegi daa dem ba nekk xaru bokkaale ak xaru bidaa ñii dañuy tànq ci deret yi denc ñii jël béjjin yi ñii di jël der bi ñii jël lii ñii jël lii di nga gis kenn koo xam ne am na lu ñu ko ci wax loolu rek lay wër loolu rek lay wër ba gis ko rek coow dagate ko dem dem denc di di- di ci def ay ay xërëm loolu baaxul xaru tabaski lan moo tax mu jóg jaamu yàlla dañoo dem ba fàtte léegi sunu ja sunu lépp ci yàlla moo tax léegi dugal dugal nañ ci leneen léegi day dem ba dootul nekk yàlla yàlla génn na ci ba set wecc te léegi lépp nag dafa bëri dafa dugg ci genn wàllu jaamu yàlla yi loo xam ne yàlla moo ko santaane lan moo tax ñuy rey xar mi du yàlla moo ko wax moo ne na ngeen ko def léegi nag yàlla moomu amatu ci dara waaw nit day dem sax ba léegi bu ko mënul dina ko def fal force ndax sama njab ah man ñemewu ma ko de man de ñemewu maa bañ a tabaski moom kay fu ma mën a dugg dinaa ko wëri aussi boo ko amee ñemewoo jënd yenn xar yi waaw sa waa kër dañ naan la ne naan yenn saa yi sax da ngay ànd ak sa soxna nga dugg ci oto bi ngeen ànd mu wàcc moom mooy jiitu na nga nañ waaw yenn saa yi nga ne ko madame ah doo xool bii moom mooy wax waaw bii de waaw waaw xool ba mu neex ko mu ne waaw waaw bii baax na nga doog a jënd jigéen waaw jëndal naa la nag jëndal naa la léegi yow an sa xar ah perte nga jëndal lan lan yow yàlla ngay jaamul looy ut ku lu ci neex nit wala sa doom yi am na ñoo xam ne seen doom yi la ñuy yóbbu waaw ñoom ñooy wax ban ngay jënd ñii seen doom yi ñii seen jabar yi ñii seen waa koñ la ñu war ga wan ne man du ma seen morom xar mi ma yeew fii ci koñ bi kenn yeewu ko fi yooyu yëpp dootul nekk yàlla te jullit lu mu ci ut mooy yàlla subhanahu wa taala yàlla mu ne wa taktumuuna alxaqa ngeen di nëbb dëgg te wa antum yéen ñii taalamuuna xam ngeen ne yéen a ngi nëbb dëgg allahu akbar allahu akbar yéen a ngi nëbb dëgg te xam ngeen ne yéen a ngi nëbb dëgg loolu mooy sunu diine Sénégal ak bëri fii ñu toog ci kaw dëgg da ngay wax sax ñu ne la doolee mën dëgg doolee mën dëgg loolu lañ lay gëmloo waaw borom yat du xeex ak borom fetal bañ nañ ko ba dañ koo woy Hmm? du loolu la ñuy way boo buggee dund dëgg gi ñu ne la déedéet dëgg doole mën dëgg ndax doole day ñëw toog ci kaw dëgg waaye doole mën na toog ci kaw dëgg waaye lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg dëgg mooy féete kaw alxaq yaalu wala yu'la alayhi lu mu yàgg day metti waaye dëgg dong mooy féete kaw parce que loolu mooy sunanullah fil ard ñun nag lu ñu sant mooy nanu dund dëgg ñu bañ ko nëbb suñu xasee xam ne lii dëgg la ab jullit bu xasee xam ne lii yàllaa ko wax lii yonent be ko wax sëñ bi bu adduna bi yëpp doon mer yow bu yeboo nga def ko waaye bul ko def ngir nit ñi mer def ko ngir ngir yàlla loolu tamit bàyyi ci xel mooy man lii dama koy def ngir yàlla amoon nañ benn oustaz ndeysaan suñu jumaa ji biñ ñu teree wax amin ñëbuñu police ñëbuñu préfecture ñu convoqué oustaz mu ñëw préfet ne ko lu tax ngeen di wax amin ci jàkka ji mu ne ko ah amin di sunnaay yonent bi man fii nga fii nga toog sax ci biir préfecture bi boo jiite woon léegi-léegi nga ni wala dalin ma ni amin man ajuma ko ci jàkka ji de amin fu ma jullee imam tari ma dégg bu ne wala dalin ma ni amin fii léegi boo jiite woon timis boo ne wala dalin ma ni amin mu ne waaye wax leen ko ndànk mu ne ko yonent bi daaw ko wax ndànk di ci bu baax la ko doon wax ba picc yi naaw ci kaaba gi pittax yi naaw mu ne waaw léegi xam nga nu ñuy def mu ne ko déedéet mu ne paa yi léegi yéen waaye leen dégg naa li ngeen wax dem leen paa yi dañoo teg seen tànk ci bunt bi rek mu ne ko ah sëriñ yi daal dañoo fiir rek ñii dañ lay fiir rek kese waxal bu waxal bu baax gis nga mu ne ko sëriñ yi dañoo fiir dañuy fiirante seen biir waaw boo ñëwee ci benn jàkk nga nekk sëriñ maanaam nga jàng imam bi day yaakaar ne place am nga bëgg a jël commencé di la contre looloo am ci dëkk bi boo dëkkee ci benn koñ nga jàng tuuti rek nga commencé ñëw ci jàkk ji rek imam bi da lay commencé xool naan la waaw da ngeen xam ne ñun fii commencé di indi di bayaan bayaan yoo xamante ne bayaanu gaaruwaale yal nañu yàlla musal yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko mbokk yi fii la ñuy yem incha allah ba samedi ak jàmm incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu
man de démb gis naa ko ku ku jiital jabaram